assalamu alaykum mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, di wax ngeen wi di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu duggal euh, di ngeen bokk ci ñukoy koy gis ñu ñëw ci suñu international sénégalais Nicolas Jackson ci diggante Arsenal ak Chelsea njumbu ju nil 2 bi partout donc suñu international sénégalais Nicolas Jackson ci banc bi la démarré donc moom bi mu ñëw fekk na Chelsea mané 2 à 0 mais à la 66e minute fa daanaka dafa dugg à la 78 e minute euh, wa Arsenal daal di dugal donc euh, ba li nga xamante ci dernier minute euh, wa Arsenal daal égaliser donc Nicolas Jackson bu ñu xoolee tey jii franchement entrée bi mu def baxul en tout cas ci ci ci ci lima ma gis apport ak euh, poids offensif bi warona am amuko donc je pense que ni lo xamné ne te war ko bu baax baax et également efficacité bi inefficacité bi franchement tey jii feeñaan gis ngeen occasion bu reuy bobu mu raté nga xamante ne bu doon euh, tey euh de surface daf koy donc Nicolas Jackson double lolu mais en tout cas ñu ngi koy ñu koy wax di courage rek mu gëna a il a euh, donc yeneen match rek dina baax bu ñu xoolee équipe Arsenal euh, Chelsea bi tey franchement euh, match bi mu def bonul hein. franchement résultat bi monter en puissance